إليك توسلنا يا خير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا mën nañ wax ni gros œuvre yi presque à 100 donc nous des juste avec moi euh, raccordement yu euh, yu ñu ak euh, finition travaux de finition pour ko terminer Nous leen même à l'intérieur de la mosquée La mosquée mën nañ en quatre parties La amna partie qui xamni extension homme la extension moy fi ñu niveau mo gëna avancé ci projet bi donc fi démarré nañ tout ce qui est travaux de faux plafond et décoration yi donc décoration intérieure coupole donc fi mo gëna a avancé gum ci ci ci travaux yi euh, yeneen zone yi euh, coupole yu bëri defagum nañ ko mais fi mo gëna a avancé même fi so seetloo soo leen seetloo def nañ préchap bi donc mom moy euh, surface bu ñu couler pour préparer tek ci car carreaux yi normalement fi ak semaine prochaine incha allah démarrer pose carrelage bi ci ci ci partie bi. actuellement pour coupole yi mën nañ wax ni ci bir mosquée bi am nañu sept coupole yu mag deux yi ñoo nekkee extension am moy fi ñu nekké ni yeneen deux yi nekkee parti femme euh, trois yi moom la ñu aligné ci digg bi mooy fu minbar bi fu imam bi nekk donc euh, jëm ci mosquée ancienne mosquée bi mooy mosquée Seydi Hadji bi mu fi sampoon donc suñu xoolee coupole yi mën nañ wax ni euh, six coupole pareegum nañ six donc sixième bi ci lañ nekk gum nii sept bi moom mooy grand grande coupole bi donc pour moom la ñuy préparer pour def travaux de de finition yi. yàlla rabbana إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا حي ربنا إليك بخير البريه لا بد من شكوى إلى الله كربتي ما غير الله جابر كسرتي li leen mën a wax rek dalal xelu nit ñi mooy liggéey bi nga dox bu baax alhamdulilah bu dee wàllum courant bi li nga xam ne mooy câble ak yëpp ci bu dee ci biir ci biir jumaa ji xas nañ ko xëcc ba li ci des bëreetul euh, bu dee wàllum euh, contrôle d'accès mooy nga xam ne mooy seetu kiy dugg ak kiy génn ak yëpp li nga xam ne mooy surveiller bërëb bi mooy vide caméra ak yu demee noonu itam câblage yooyu yëpp xas nañ ko def te li ci des itam euh, lu néew la lu néew la dafa am juste ay réajustement maanaam ay li ñuy defaraat rek pour mu mën a pare incha allah wàllum sonorisation bi ak régie vidéo bi loolu itam yaakaar naa euh, pare nañ ñooy ànd li des rek mooy benn parti bu ndaw fi nga xam ne foofu la ñu defee foofu la ñu dajale équipement yëpp pour mën koo saytu waaye alhamdulilah ñu ngi ñu ngi def lu ñu mën bu dee wàllum euh, seddal bërëb bi muy climatisation bi boobu itam moo ci xawoon a gën a metti ndax moo euh, décoration bi ñoom ñooy ànd waaye alhamdulilah fexe nañ ba juboo ci ni ñuy liggéeyee pour que kenn bañ a tardel kenn kenn bañ a yàqal kenn incha allah ba ku jàll sa morom topp ci te du am benn benn gàllankoor ci liggéey bi alhamdulilah ñoom bu dee fi nga gis nii moom mooy euh, bërëb bi nga xam ne moom lañ ñi euh, mën nañ wax ñu ngi presque à 80 li des pour mu mat sëkk bëreetul li des rek mooy euh, li nga war a teg pour que ngelaw bu sedd bi mën ci jàll te loolu mi ngi ci yoon bi allah dinañ ko dinañ ko teg fii ak ay fan yu new incha allah taala. c'est vrai que ñoo ci période nawet actuellement même euh, Tivaouane il y a deux semaines de cela rek euh, tawon na donc euh, heureusement démarré woon nañ suñu planning tenir en compte toute la saison bi ba commencé on sax def forme de panty. presque une petite forme de panty. yi def nañ ko loolu moo tax ba presque am ay benn dégâts yoo xam ponctuels, dafa ponctuel mais suñu dans l'ensemble franchement

échelonné yo xamni chaque fin du mois dang koy dag mais bu dee seconde œuvre finition yi fi ñu toll nii ay ay ay commande globale la de ku nekk commande globale xamni dafa laaj moins donc di ñaaxaat euh, suñu mbokk fidèles yi ñu xam yi dañoo gëna a soxla euh, nit ñi gëna yëngu pour ñu mën terminer travaux tawassalna bi xayril bariyati خير البرية فلا بد من شكوى إلى الله كربتي ما لي غير الله جابر كسرتي ويا الله ربنا إليك تبقى